indaale feebar bi ñeent ñooñu ñi ngi jóge ci département bu Dakar ci wàllu topp bi am na benn malade boo xam ne saytu nañ ko dafa nañ ko test te jàpp nañ ne tey wér na dina dellu ci njabootam. am na ñaari cas grave mooy ñi nga xam ne mbas mi da leen loofal ñi ngi ci bërëbu fajukaay yi particulièrement ci sauvetage démb ci dibeer bi amul kenn ka nga xam ne fii ci senegal ñàkk na bakkanam te mbas bi indi ko. ña nga xam ne ñu ngi topp ci hôpital yi ak ci kër yi ñoom ñëpp seen wér yaram mi nga am tan loolu jàllee ñu wax ci tiis bu am démb ci diwaanu Sacré-Cœur benn docteur di dentiste la ñu xamle ni moo daal di fàtt ñetti doomam xale yi di euh, ñaar ñu jigéen ak kenn ku góor euh, ba noppi daal di faat boppam ci ay xibaar la ñu xamle ni euh, la ñu njortu la ñu dafa am coow ak benn réero bu dox ci digganteem ak soxnaam ba tax mu daal di def lu ni mel ginnaaw ba waa sapeur daal di yóbboo ab koram ca l'hôpital daal di nañu police daal dina ubbi ab enquête ngir indi ay leeral ci lu ni mel dinañu ci ñëwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar bu loolu jàllee ñu wax ci politique ginnaaw eh, bi ñu seetloo ay liste parallèle eh, biir APR la ñu gis ni eh, fële ca diwaanu Dalifort amuñu benn liste boo xam ne liste parallèle la amu fa foofu ca diwaan ba ki nga xam ne mooy awaña nekk caissière ca assemblée daal dina xam le ni Dalifort amul benn list parallèle ndax dafay yàqal ki nga xam ne mooy njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ci nonu sax dal dina xamle ni yenn candidat yi ñu bañal sen liste ñu tewlu ay kàddoom ci micro margué parallèle da da fay fay da fay yak lu bari parce que da fay affaiblir quand même li nga xam moy coalition Benno Bokk Yaakaar motax fi au niveau de Dalifort bi mu amee voilà dañu suivre les instructions du président de la République parce que ku euh liste Dalifort man ma jël proportionnel alors suma amone dara lu may xalat dama nan du mu ko jël mais mbir dina tollu fo xamné do xol sa intérêt bopp da ngay xol intérêt sa coalition parce que sunu mentor c'est le président de la république sunu patron moy président Macky Sall kon defe na né lépp lu mu bëgg ñun war nañ ko ka defal looloo tax tay ñu rayante ba sunu liste amul benn yoon mu am liste parallèle quand même au niveau au niveau de la commune de Dalifort en tout cas euh, lolo moom constaté nañ ko c'est ce que nous en tant que responsable de département parce que passé nañ ay messages ci nos communes yi xamal que leen suñ objectif gagner les 12 communes mais avec liste parallèle yi dañuy dañuy am problème dañuy am difficulté pour gagner yenn communes yi te jàpp naa ne bu ñu dajaloo nekk benn li ñu bëgg dinañ ko am li ñu bëgg coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam dafa am doole ci département Pikine mais buñu dajalo dañuy gagner moñu buñu disperser ñu dispersé quand même dañuy mën may occasion li nga xamné moy opposition bi. mais su fekké da nga ñëw euh liñ la wax matalawuloko alors ce liste defe nané pour valider ko day nekk problème et defe nané ne warul nekk débat warul nekk débat d'autant plus que ku nekk so lire texte lim la may boko ko duñu rejeter ce liste kon defe nané ne euh engagé wul état engagé wul président engagé ni nga xamné ne ñoo nekk mandataire te waroon a defar. bu baax te defaruñu ko. Euh, ñu fàttali sax ki nga xam ne mooy awañaa yooyu kàddu daal dina ko yëkkati ci ab sargal bi ñu ko doon amal daal di koy jagleel fële ca diwaanu Dalifort euh, ñu dem ci fële ci golfe sud Cheikh Omar te nekk ci bopp liste coalition avec euh, bu nga xam ne liggéeykat yi ñoo daal di ko ëmb moom daal dina xamle ci micro marguey ni am na programme bu am am solo ci noonu sax moom yeexul benn yoon ngir woo ki nga xam ne mooy Lat Diop te nekk candidat bu Benno Bokk mu koy xamal ni euh, na daal di wàcc katkat yi te bàyyi garde corps yi muy àndal mu daal di ñëw ñu daal di def ab jàkkaarloo euh, daal di am waxtaan ci seen diggante leeral li ci micro margué dañu jëm ci ay élection yoo xam ne da ngeen di tànn tête de liste di xam kan mooy maire bi avant dañ doon jël ay nit ñu boole leen ci benn liste dem ba ci fin bi ngeen teg Cheikh Oumar ci kaw après Babacar génn ngeen maire ngeen toog ñëpp a toog bii dañ leen di ne diw mooy jiite te Golf nag dafa jot ñu xam kan mooy jiite Jolfu Sud dafa xam ñi di jiite ñu génne seeni programme programme bi waxuñu la nga dem romb ay association ci ay leket nga fay def xaalis programme bi waxuñu la ne yow forum nga ne ay ASC dañ leen di jox 1 million programme bi du ay digge ay ay ay ay terrain synthétique partout mu mel ni ne fii 1xBet lañ fiy defee du loolu moo ñu tax a jóg xale yi du loterie moo leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy am ay formation am liggéey am durabilité am ay projet yu structurant ci biir Golfe Sud ñu dégg tamit ni amoon suñu naataang yu fi nekk ñu déposé seen liste am fi ay jafe-jafe te ñun dinañ leen taxu ñoom tamit parce que dañuy gëm gëm ne compétition bu amee dafa war a am règle gentleman waruñu tricher waruñu def leneen muy nekk suñu naataangoo yeewu askan bi gis nañu liñ fi def fii ci Golfe Sud gis nañ ko tamit ñu def ko ci yenn ay gox yu gox yu gox yu gox c'est pas parce que tu es au pouvoir wala tu es à l'opposition ngay jéem a galgal ji ci des la ñuy def mooy règle du jeu la dañuy teg ay liste liste yi ku ci feeñ teg nekk tête de war nga am sañ nga wane wane sa programme nga ne man nii laay demee pour doxalee Golf Sud ñun xam nañu ne day en face Lat Diop mooy suñu adversaire politique moom moo bëgg a jël golf te ñun am na amul fu Lat Diop mën a teg tànkam te duñ ko nekk tànkam ñun li koy ñaan fii ci biir Golf Sud na am sañ-sañ ñu toog ñu toog ñun nag moom janoo ñu def benn débat programmatique ci lenn loo xam ne mooy développer Golf loolu lañ koy laaj. bu nekkee nag am na fit boobu am na sañ-sañ boobu na wàcc kaat-kaat yi na bàyyi garde corps yi na bàyyi euh, lépp yu muy def ay yooyu yëpp laa ñu ko dañ ko nekk na ñëw toog ci table ñu toog ci table ak yeneen candidat yi mu neex ñu toog ci table ñu teg programme Golf Sud mu wax moom lan lay def Cheikh Oumar wax lan mooy def keneen wax lan mooy def mais nag ñeme nañ ko sañ nañ ko am nañu fit bi te ne yaakaar nañu ne le 23 juin incha le 23 janvier incha allah bu waa Golf Sud xëyee dinañu dinañu. dinañu voteel liste avec liggéeykat yi. démb formation bi aju ci mbër yi lañ doon amal ngir daal di leen di euh, def ñu daal di doon li nga xam ne mooy ay garde rapproché te ñu toll ci juróom fukki mbër démb lañ doon jot li nga xam ne mooy seen diplôme ginnaaw ba ñu amee formation yooyu ba noppi ki nga xam ne mooy président ba ko jiite woon di Xaadim Mbuup daal dina xamle ni yooyu les mbër te ñu daal di leen former ngir garde rapproché bu ñu def sax seen xalaat ni ñoom ay nervi lañ xanaa euh, dañoo def ci ñoom. formation bi nga xamni mo war ngir ñu nekk li nga xamni moy garde rapproché indina ay leeral ci micro Maguette ñu teewlu ay cadeau dañ le nervi formation yi tàmbali na jeex xam nga lan moy nervi moy qui ne comprend rien euh, ko xamni euh jangalu ñuko xamul mais xalé yi ni tay ñu formé tay du ñu ay nervi ndax kenn mënatu leen exploiter war nañu mëna am sen job nak mais ci kaw ñu tekko ci dans les règles de l'art tekko fu leer. parce que formé nañ leen te ñi leen formé ay ndaanaan lañu parce que ñi leen formé tey képp koo xam ne rek tey képp ku fi yor ay VIP ñoom ñoo la formé moo tax nag dañuy sant yàlla ñoom ñoo ko waxal seen bopp am na ci lutteurs yoo xam bi ñu leen formé ba pare dañoo remercier association FILS remercier abisé yi parce que tey formation yi tax na ba ñoom nee nañ nekkatuñu ay nervi moo tax formation dafa am solo de nee nañ nekkatuñu ay nervi léegi kenn dootu leen exploité dañoo yor seen ay diplôme seen ay carte professionnelle C'est leen ci cadre professionnel Je suis di woo moo président bu 42 ministères ou 30 ministères ministère de la formation professionnelle de l'emploi et de l'insertion. Il y ministère bu ko pour doole parce que ndaw yi dañ leen war a former formation dara. Euh, ci ndaje moomu sax lañuy ñuy desandi ba léegi ki nga xam ne mooy maam Aby Seye directrice générale 3FPT daal dina ñëwaat ci lu lu waral ñu daal di amal formation bi te jégleel ko ñi nga xam ne mooy ñooy mbëri euh, ñu teewlu ay kàddu maam Aby Seye ci micro mar di ko rafetlu ndax tey jii dañuy xool ni lutteurs yi ci seen activité lutte bi ñuy def loolu rek doyul parce que ñëpp mënuñoo fës ci lutte bi ñëpp génnuñu ci lutte bi donc dañu leen war a taxaw pour ñu am beneen activité à bi leen di mën a jàppale tey garde rapproché la tey sécurité la mais suñu suñu suñu pas-pas ak suñu yéene ak association FILS ak seen président bi taxaw tey jii Bamba Mbow sur toute l'étendue du territoire madame lal 14 régions du Sénégal yi te xool tamit yeneen yeneen tàggat yoo xamante tamit dina leen mën permettre ëllëg ñu mun a daan seen doole di def seen lutte waaye tamit continuer continuer am beneen activité boo xamante activité décente boo xamante ni dina générer ay revenus permettre leen tamit seen insertion ci ci ci ci dëkk bi gën a yomb. bu loolu jàllee ñu door xibaaru tàggat yaram ak tournoi CEDEAO équipe nationale bu Sénégal daal dina jël raw gàdd gi mu nekk juróomu ñetteelu yoon bi muy gagné boobule compétition ginnaaw bi mu amee ndam lu yaatoo yaatu ci kaw équipe bu Niger ci 4-1. ba tey ci xibaaru tàggat yaram la ñuy des ñu wax ci résultat championnat Espagne yi nga xam ne moo amoon ci week bi euh, Celta Vigo daa ak doon na tase ak Barça dañoo match nul ci score 3-3 euh, Valence doon na tase itam ak ki nga xam ne mooy Atlético Madrid ñoom itam dañoo match nul 3-3 euh, la ñu am ca boobule jàkkaarloo Real Madrid doon na tase ak Valenciano daal dina koy dóor ci score 2-1 ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram yi ak résultat championnat Angleterre. West Ham daal dina am euh, ci kaw ki nga xam ne mooy Liverpool ndam ci score 3-2 Manchester United itam doon na tese ak Man City Man City moo daal di koy dóor 2-0 euh, euh, Leeds United doon na tese ak Leicester ñoom itam dañoo match nil 1 Everton doon na ak ki nga xam ne mooy Tottenham ñoom dañoo daal de Tottenham Everton moo daal di ñàkk ci boobu boobule match ñu jeexale xibaaru tàggat yaram mi ak match bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Arsenal ak. Watford équipe bu Arsenal bi moo daal di am ndam ci kaw Watford ci score 1-0 mbokk yi li moo nekkoon xibaaru digg bëccëg yi di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah.